Matar ñu ngi lay nuyu euh, di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay. Euh, bu Benno Bokk Yaakaar ci dialogue national bi doon tamit secrétaire général parti politique ñàkk jëriñu. ñu wax ci fichier bi gannaaw nag ñetti weer ay experts euh, daal nañ ko saytu wax ne fichier bi fu mu nekk nii dafa cohérent maanaam amul li nga xam ne nit ñi war nañ koo laam-laamee am déet tey ban commentaire nga ciy def. waaw commentaire bi ma ciy def mooy di ko rafetlu rek ndaxte nag. defe naa léegi mu def ñaari at bu ma jumul mois de mai ba léegi la ñu ubbi woon dialogue politique bi nga xam ne moom lay moom mooy dox ba tey biñ ko ubbee it opposition bi ñëwoon ne Euh, bu ñu càmbarul fichier électoral bi ñoom du ñu demati ci benn élection ñu nangul leen ko mais waxoon nañ leen nag fichier bi day deux mille dix huit déjà càmbaroon nañ ko te li ci génnoon mooy fichier bi baax na mais ñu ne ñoom buñ ko càmbarul du ñu bokk bokkati comme ñun ñoo woote woon dialogue par le biais de la président de coalition le président du président de coalition le président Macky Sall on a accepté euh, ci processus boobu nag ñun ñoo ci ànd donc terme de référence yi mooy kayit bi nga xam ne bind nañ ko pour ñu def audit bi ñun ñoo ko defandoo mais lu ci gën a bari sax ci ñoom la joge ndax ñoom ñoom amoon lu ñuy ñaxtu euh, ñu continuer ba jël ay jàmbur yu jóge bitim réew ñu defar ñu audit bi bi ñuy def audit bi ñetti weer yi ñu fi def aussi semaine bu nekk ñu waxtaan ak ñu gisante ñoom ñu wax ñu fii la ñu yem lii la ñu bëgg a def ak yooyu yooyu yëpp nag buñ ko defee euh, ñu tey am résultat ne fichier bi baax na ñun ñëpp dañ ko waroon a mën a nangu waaye li ñuy dégg fii mu toll ci rajo bi dëgg-dëgg bett ñu te jaaxal nañu ci opposition bi parce que nag euh, commencement ba tey jii ñoom ñu ngi ci woon euh, ñooñu ay jaabur lañ te gisuñu ban intérêt la ñu am pour wax li nga xam ne amul ci fichier bi. bi baax na ñoo ngi wax ni tamit am na ay incohérence yi nga xam ne daan nañ ko ci soulever. ah waaw incohérence yooyu de xaw ma yàlla parce que nag man. Euh, gis ne euh, ay nit yokk nañu euh, maanaam population bi yokk na ci élection présidentielle yi ñu wees. waaye it gis nañu tamit ne inscription yi dafa gën a yokk ci yenn diwaan yi ci mel ni Tamba Sédhiou Kolda contrairement ak diwaan yu mel ni Thiès Saint-Louis Kaolack Fatick ak Diourbel. waaw man loolu gisuma lu ciy cohérence parce que population sénégalaise day yokk ñëpp xam nañu ne population sénégalaise bi day yokk mais au-delà de ça presque at mu nekk lu mat euh, ñaar téeméeri junni mm-hmm. deux cent mille euh, euh, jeunes ñu am at woote ñu war a mën bi leen bindu ci ci liste électorale te bu ñu fàttee ne carte électeur bi yii ñu am dafa boole carte d'identité donc am na ñu bëri bindu nañu ci commission administrative yi ñu defal leen ay données électorales mais li leen gën a intéressé mooy carte d'identité mooy mooy carte d'identité bi ndaxte bu ñu fàtte ne Sénégal vote bi c'est pas obligatoire donc bu ñu gisee ne fichier bi yokku na mais lu normal ndax fichier bi fi nekk nga xam ne euh, chiffre bi sax ci wolof du ko mën a wax six millions six cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-dix-huit électeurs la mm-hmm. lu ci gën a bëri ci li ñuy woowee refonte bi nga xam ne defoon nañ ko ci leen ñi binduwaatee diggante bi amaat na beneen révision bi nga xam ne am na lu ma trois cent mille lopp trois Euh, trois cent soixante quatre mille huit cent trent quatre inscrits ñoom ñoo ci yokku donc c' est normal que dëkk bi di yokk population bi di yokku jeunes yi nga xam ne am nañu âge wote di yokku c' est normal que fichier bi yokku maintenant dëkk yooyu ñuy wax nag xaw ma lan mooy particularité parce que euh, bu dee wàllu élection ñun dëkk yëpp la ñuy gagné donc xaw ma euh, Tamba yokku na fii dafa wàññeeku mais population yi ñoo dem bindu yi te quand même loolu mënu ma ko woowee incohérence ndax auditeurs yi nga xam ne ñoo ko càmbar mhm. bu ñu gisoon ne am na lu fa normal dinañ ko feeñal te waxuñu dara ci loolu parce que waree nañu ne que amul kenn ku bindu ñaari yoon amul mineur ci fichier bi fichier bi diñ ko defaree en fait jaar na jaar na yoon loolu yëpp nag boo ko gisee day wane ne rek dama yaakaar ne sama gars yi li ñu yaakaar yaakaaroon nañu amul rek mooy waa opposition bi waaye fichier bi kenn amatul lu bëri li mu ci wax. et justement ndax am na léegi euh, pertinence ñu naan nañu aj local yi. waaw non xam nga aj local yi moom c'est trop tard moom mënatuñ ko ñàkk aj ndax déjà voté nañu loi pour aj ko mais li ma ci xaw a li ma xaw a gêné. aj nañu local yi ñaar ba ñetti yoon lépp ndax opposition bi ndax aj bu njëkk bi naam euh, li ñu li li tax ñu jëlee woon ko euh, mois de mai juin deux mille dix neuf yóbbu ko décembre deux mille dix xamoon nañ ne dafa dafa demoon ba période bi ñu ko waroon organiser ñu nekkoon ci tànkoor ci élection présidentielle yi. waaye ñeneen rëp ñaar yeneen yi ñu ko reporté yépp mais parce que audi euh, opposition bi ñoo waxoon bu ñu deful càmbar fichier bu ñu deful audit bu ñu dem élection donc tey jii liñ leen waxoon ñun ne leen fichier bi baax na ñu gëmuñu ko woon tey jii ay jàmbur joge nañu bitim réew liggéey ci fichier bi ñetti weer wax leen liñ leen waxoon kon kay tey ñoom ñoo war a am li nga xam ne dina leen metti ndax tardeel nañu élection yi ba pare liñ leen waxoon ñu gis ko mooy fichier bi baax na ñoom ñoo war a am vraiment ñuy lu ñuy xam ne dinañ ko dinañ ko reprocher seen bopp waaye du ñun ñun dañ leen woo ci dialogue d'accord fi nga xam ne parce que tey jii bu ñu demul woon ba ay jàmbur wax fichier bi baax na boo fi organisé waate élection yi dañuy wax ne dañoo fraude te yàlla xam ne fraude amu ci fichier bi baax na baaxoon na deux mille dix huit auditeurs yi waree nañu baax na deux mille vingt an un donc euh, report yëpp vraiment euh, mënoon nañ ko éviter mais opposition mooñ ci dugal mais danañ nañ ko assumer en fait en tant qu'acteur politique. fukki recommandation ak ñett su ko defee suñu jeu euh, électoral mën a méngoog standard euh, plan international ndax euh, li ni mel firndewul ne kon ñun nekkuñu ci woon. du loolu de fukki recommandation ak ñett yi du pour ñu mën a méngoog standard international audit bu ñëw day recommandation recommandation yi ñu defal lu ci gën a bëri sax recommandation matérielle la cest dire dañ lay bindal nee la kat waa daaf yi yokk seen personnel. ndax liggéey bi dafa bëri waa daaf yi war nañu yokk seen formation personnelle wala bu ñu demee inscrire nit ci ay ay ay gox yu xaw a sori Dakar bu ñu indi kii nañ leen nañ nañ nañu def attention pour que oto yi ngeen dugal ñu gën ko sécuriser mhm. balaa ñuy perte données yi wala ñu ne la euh, réseau informatique bi ci yenn ruq yi euh, internet bi gaaw fa trop mën na am lu muy def yooyu mooy recommandation yi waaye ñoom li ñu bind mu leer mooy fichier électoral bi ñu am mooy respecté na lépp li nga xam ne ñu ngi koy def ci bitim réew ci te muy standard ci wàlli fichier électoral mm. donc recommandation yi du loolu lay firnde li muy firnde mooy euh, fas lu mu daw daw ñu gën ko làbbali système bi baax na mais bu buñ ci mu buñ ko mënee yokk ñu yokk pour mu gën a baax nañ ko def te yokk boobu c'est plus sur le plan matériel que ci euh, ci ci bi ci boppam. Mhm. wax ci parrainage bi jamono ji euh, ay fan wala sax euh, bu yàggul CEDEAO génn wax ne Sénégal na retiré loi jëm ci parrainage nan nga ko jàngatee. waaw jàngat bi mooy cour cour couru CEDEAO boobu dañu porter plainte bi ñuy bind plainte bi sax élection présidentielle jotul woon man lool sax après laa ko xam te ñoom it li ñu bind seen kayit mooy dañu yaakaar ne li ñuy woowee imminence. dañu yaakaar ne parrainage bi mun na tax ñu bañ a respecter droit wu ko nga xam ne da nga bëgg a nekk candidat ñu gis ne loolu nag dëgg nag xaw naa oyof waaye comme ñun duñu juriste bàyyi nañu ak yi li ñu wax ñu d'accord comme ñoom te fii mu toll nañu war a réformer euh, cour tribunal boobu nga xam ne moo nekk euh, tribunal CEDEAO réformer ko ba ñu xool ñoom nan la ñuy gën a mën a amee information yu ñu soxla jóge ci dëkk yi mais nañu gën a mën a euh, xool diggante ñun parce que loi parrainage bi ñun dañu ko voté fii assemblée nationale mm-hmm. am na sax ñu defoon recours conseil constitutionnel wan leen ne ñu loi bi baax na donc ñun nan la ñun Sénégal euh, suñu conseil constitutionnel confirmé ko ba ñu utiliser ko tey jii en fait tribunal bi CEDEAO ne dindi leen ko yaakaar naa ne yenul maana mais comme li may wax débat juriste la en tout cas ñun li ñu gën a soxal mooy jël nañu ay jàmbur yu amoon yu nga xam ne ay juriste ci biir ñu càmbar ko ne parenage bi baax na mun nañ ko yokk nag may candidat bi nga xam ne bëgg nga def parrainage bu weesoo euh, parrainage citoyen bi ñu doon def nga xam ne nit ñi ñoo lay ñoo lay ne dañ lay parrainer nañ ko may mu mën a seeti ay député ñu defal ko parrainage wala ay conseil municipal wala ay conseil ruraux ay conseil départementaux loolu daal lañ ci gis auditeurs yi wan nañu ne parenage bi baax Euh, parrainage boobu parrainage boobu nañ nañ ko yokk nañ ko defaraat ñun d'accord nañ ci defaraat bi waaye génn bi ñun d'accord ci du bu njëkk euh, CEDEAO di joxee décision euh, Sénégal bañ ko appliquer ndax li ni mel yéen noonu euh, yelloon na maanaa comme ni nga ko waxee Sénégal bokk ci cour bi ba pare du nangu lu yi mi tëral. waaw du Sénégal rek bëri na dëkk yi nga xam ne cour bi day rendre sax génn ay génn ay arrêt ñu bañ ko appliquer moo tax ma ne dëgg-dëgg domaine boobu xóotuma ci trop mais juristes yi nee nañu nañ ko réformer ba mën a def relation bi diggante li nga xam ne ñu ngi koy jàpp ci dëkk yi. bi ak la ñuy jàpp ci communauté bi parce que nag je crois bu doon bu doon mesure bu mu jël day dañuy ne force dëkk bi appliqué ko tey jii du ñu am luñ ci wax mais dañuy jël ay mesures bu ko dëkk bi appliqué wul it en fait du mujj fenn moo tax daal yaakaar na xoolaat ko li ñuy woowee réforme tribunal bi war nañ ko mën a def ba euh, li nga xam ne en tout cas d'accord nañ ko ñu mën ko appliquer ci dëkk yëpp. nga nekk Benno Bokk Yaakaar tey jii euh, bu ñu sukkandikoo ci actualité gi ñu fësal mercredi gi euh, Benno Bokk Yaakaar la fay xeeñ neexul maanaam dafa yëngu dafa am malaise ndax yow li ni mel ànd nga ci. waaw non man gisuma malaise bopp ak man yàlla def na euh, man njiitu parti la mhm. muy ñàkk jëriñu waaye njiitu coalition la muy coalition Benno Tanor depuis 2012 bokk ci coalition yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal benn Bokk Yaakaar mhm. te tey fi may wax ak yow euh, membre laa ci conseil exécutif euh, secrétariat exécutif permanent bu benn Bokk Yaakaar mhm. donc amul benn réunion bu conférence des leaders bi am 2012 ba léegi bu ma fekkewul ndax en fait euh, ndombal tànk yooyu mu am ci wàllu politique ci biir Benno Bokk Yaakaar gisuma ne Benno Bokk Yaakaar dafa nekk ci xaw ma lan dafa nekk ci pëccëxoo xam nga rek nit ñi moom euh, peut-être yàkkamti nañ ko ndax 2012 ba léegi ñu ngi wax Benno 2012 ak 2013 ba léegi la ñuy wax Benno dina tas te Benno alhamdulilah 2012 ba tey tasul Benno ngi dem élection bennoo ngi gagné toutes les élections yi mu bokk yëpp mu ngi koy gagné bennoo ngi gérer pouvoir bi donc euh, dëgg dëgg seen pàcc xaw boobu gisuma ko maintenant nag il faut ñu d' accord ne waaw bay bay bàyyil ma eggali mm-hmm. waaw ma ne euh, léegi nag comme parti politique la ñu nekk coalition bi toll ni benn lu toll ni ñaari téeméer organisation mënuñu ne nit ñi amul ñu fa nekk amuñu lu nga xam ne seen xalaat dafa dafa juweloo ak xalaat bi nga xam ne moom mooy moom mooy dox ñu nangul leen ko parce que nag am nañu droit wax li ñu xalaat waaye ñun li ñu doon gënal mooy li wax li ñuy xalaat bu ñu amee cadre bu ñu ko mën a waxee ñu waxee ko fa ci biir coalition bi mm-hmm. mais terewul ne démocratie nag lañu nekk Benno Bokk Yaakaar du du armee bi nga xam ne dañu ne ñëpp noppi leen euh, ku xalaat dara wax ko ci ci xalaat boobu la ñu gëm ne moom la ñuy waxtaane ba gën a yokk euh, li ñuy woowee améliorer yokk li nga xam ne euh, doxalinu Benno Bokk Yaakaar waaye ni ko ni ñu ko bindee noonu amewul noonu parce que en réalité Benno Bokk Yaakaar a ngi dox même bu dee nag d'accord na am na ñu mën a am am beneen xalaat te am nañu droit wax ko. Mhm. Euh, dëgg la politique euh, lañ la gën a xamee mais it sport yi teel na la tey Sénégal euh, fileeg le 18 ñu ngi koy xaar mais ba tey jàpp nañ ne stade amu fi gi nga xam ne homologué nañ ko ndax li ni mel tamit dal na xel ci Sénégal bi nga xam ne tey ci wàllum performance mën nañoo ne mën nañ ko woofu ne. waaw ñu ko duñ ko vraiment dañ koy métti parce que quand même comme ko waxee ñun milieu boobu. am na lu ñu ci xam ndax yàlla def ne ci nawetaan ba 2017 nekkoon ñu ba troisième vice président ONCAV mooy ñi nga xam ne ñooy yor nawetaan bi ci Sénégal yàlla def na it euh, nekkoon na ñu vice président Guédiawaye football club mu nekk mu nekk Ligue 1 te nag comme ñun maire de ville la woon parce que maire ville de Guédiawaye la ñu woon xam na ñu lan mooy infrastructure sportive ak gestion beeg yooyu. Euh, loolu yëpp nag day wone ne rek li tax ñu koy métti lu dëkk bi toll ni Sénégal lu mat at ak genn wàll nga nekk la dëkk bi nga xam ne yaa jiitu ci football ci Afrique mhm. mu dem ba amuloo stade booy defee say match dañ koy métti lu état bi naam def na effort yu bari parce que 2012 ba léegi nag am na bëri na investiment yu dugal ci sport bi mhm. waaye li leen di wax rek mooy ñu jéem a gën a góor góor lu gën a yokk seen euh, doole pour que Sénégal quand même match yi ñu war a football surtout éliminatoire Euh, coupe du monde la ñu mën ko def fii ci suñu suñu biir dëkk ndax gis nañ fi euh, bu ma juumul euh, pour éliminatoire coupe du monde bi nga xam ne je crois 2014 la woon mhm. Sénégal demu ci mais match bi nga xam ne joué na ko Côte d'Ivoire Maroc bu ko Sénégal gagné woon en fait day qualifié wut et malheureusement Euh, ñu ngi ko fubalee Maroc euh, ñu nag Côte d'Ivoire muy match nul te gëm nañu bu ñu nekkoon fii mu am ñu jàppale xale yi gën leen taxaw du ñàkk Sénégal qualifié donc en tout cas appel rek lañ ci mun woo ñi nga xam ne ñoo yor mbër moomu ñu gën a mën a baral dox yi jéego yi ba Sénégal mën a recevoir fii te nag bu loolu weesoo ñu ñaan yàlla stade amitié bi liggéey bi ñu accéléré ko mu teel a pare ak stade Demba Diop mais surtout. stade bu mag bi nga xam ne om sport bi président di tabax jam ñaajo mu pare ba ñu mën ko jébbal ndaw yi yëngu ci wàllu eh, sport mais surtout ci wàllu football. Cheikh Sarr ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal.